tey dañu fa yéene waxtaan ak yow lu jëm ci mbirum sexualité ñu xaw ci laal tuuti euh, soxna Eva damay dégg léeg soxna yi ñuy wax ne heure bu ma nekkee ak sama borom kër ba pare rek sama biir day metti loolu en général lu koy indi ak jigéen ndax war na nekk ak borom këram ba pare rek sëkk ak moom rapport sexuel pare rek daal di dem tëdd nelaw noonu sans même autant mu dem rek mu dem raxas euh, organe organe végétal am loolu loolu naka la noolu est-ce que loolu lu jaadu la. Mm-hmm. en général euh, jigéen buy sëy muy metti am na infection wala mu am kyste mm-hmm. wala euh, bu fekkente ne nag kuy soog sëy la yooyu mm-hmm. c'est un peu normal muy soccat daal fekkee voilà na am euh, voilà ay infection bu yàgg sëy la donc am na yu bëri yoo xamante ni mën nañ ko def pour métit yooyu wàññeeku donc jigéen bala ngay sëy si jëkkër naanal ndox ndox dafa am important mm-hmm. waaw naanal ndox donc ñun nous sommes des africains on a des produits yoo xamante ni c'est naturel mm-hmm. waaw sa sa awra mën nga koo wax am na ñu bari dañuy jël saabu di ko dugal ci seen biir awra loolu c'est néfaste c'est néfaste baaxul waaw mën nga jël rek comme le vinaigre blanc bi ma la doon wax maa lay mm. wax jigéen war na ko yor fu ne mën nga ko jël yokk ci ndox nga raxas sa awra. Mhm, wala citron bi. Mhm. raxas. sa kanam tamit. voilà ay ovules de karité. def ko bul waaw ah, dugal ko sa kanam. waaw def ko sa kanam loolu yomb na yomb na torop. Mhm. voilà et ñuy am hygiène. sa kanam da koy raxas mais mais mais mais mais Eva jigéen mais Eva doguma mais jigéen dañoo jàpp ne bu ñu jëlul saabu bomb seen vaccin yi dañuy jàpp ne maanaam setul. mais vaccin bi ci kaw va le vaccin loolu moom ndox dong moo fa war a dugg dara parce que loolu am na flore vaginale boo xam ne moo koy nettoyel boppam. Mm-hmm. waaw gis nga ay parois gis nga yàlla ni mu bindee nit. Mm-hmm. ci biir. nit mm-hmm. ku am na lu koy nettoyé. biiru nit ay organam lépp am na liquide bu fay jaar nettoyé ko ba mu set mm-hmm. waaw léegi nag euh, jigéen tamit bu defee rapport ak jëkkëram ba pare na jóg tamit loolu nekk ci biir mu ko raxas ba mu set mm-hmm. mais ñoom léeg-léeg dañ koy bàyyi muy fanaan ak ñoom loolu moo leen indil perte blanche di leen indil infection vaginale yi ba pare day tax dangay sëcc moo tax léeg jigéen boo xamante ne vagin bi dafam xet Mhm. loolu dañ koy gis tamit tamit léegi léegi loolu léegi loolu luy solution bi boo paree danga nga war a jóg dem raxas ndox ndox wala lan. boo paree rek demal nga raxas ak ndox nga raxas ba mu set ndox. Mhm. parce que boo paree tamit euh, à chaque fois rek moom euh, mémoire am mooy dina nettoyer li ci mhm. jël flore bi dina liquide bi nettoyer ko ba mu set. du génn. te mm-hmm. itam ñuy éviter di sol ñu seere torop mm-hmm. mooy silib yi nga xam ne du coton. waaw ak bàyyi voilà bàyyi yooyu noonu nilon yi ñu koy éviter. Mm-hmm. ñu koy éviter daal lu bëri même ku góor ba ci ku jigéen. mën na nekk ku góor ak ku jigéen. parce buy sol luy seere mën na jouer ci ay awraam. voilà donc euh, hygiène bi daal moo ëpp primordial. Mm-hmm. Euh, sama benn xaritu médecin mos na ma wax ne ma Modou xanaa xamoo góor yi nga xam ne ñoo dàq sol caleçon bu seere ñoo gën a xeeñ. waaw. Mm-hmm. <laughs> mais góor caleçon waru serré mais tubay mais yére waru serré. man mhm. comprendre ma léegi comme mode bi xew léegi ñu jàpp yére yi seereel ko mhm. tey boo demoon hôpital li nga gis ay góor yu am problème ci seen awra ndax li ñuy sol dafa seere dafa seere mhm. waaw ndax li ñuy sol dafa seere fan yee rek sama benn euh, xaritu médecin mu ngi ma koy expliquer donc waa ji am na problème ci awra yi parce que voilà buñ gaawul opéré ko maar day indi donc euh, il faut ñu bàyyi tuba yi xew léegi bàyyi leen ko li laay war a tuuli bàyyi xew léegi xale yu góor yi mhm. kenn xamatul li ñuy genre bi ñuy sol lan la mhm. da ngay gis ku solo doo xam lu mu sol lan la mhm. xool incorrect rek la bu njëkk ba ku solaan tuba bu cëkk dañ la naan sax ñaawal di reetaan incorrect incorrect rek à

jëlee sa serviette nga pomp ko ba mu wow voilà boo ko raxasee nag ba mu set laa wax. nga mhm. pomp ak serviette. léegi yow en tant que en tant que borom xam-xam tamit mu doon loo xam ne lu ñu constaté la te gis ko léegi mu gis ne léegi nit yi ñu ngi seetaan film yooyu nga xamante ne film tubaab yi doy waar yooyu en plus tamit ñu koy appliquer ak seen borom kër yi ñu gis ne tamit léeg-léeg da ngay gis euh, lu mel ni euh, jigéen yi par rapport ak góor di war a féetee kaw léeg-léeg da ngay jigéen ñi ñooy nekk ci kaw di seeg seen borom kër seen góor yi seen jëkkër yi di féetee suuf loolu tamit est-ce que am na effet loo xam ne da koy jouer ci wér-gu-yaramu jigéen. loolu non non loolu moom amul problème ci wér-gu-yaramu jigéen. Mm-hmm. loolu moom y a aucun problème. Mm-hmm. la la façon de faire les les rapports sexuels. le le le lenn rek mooy kii mooy ci ginnaaw jigéen moom doo fa sëyee. waaw ah, loolu moom charia da koy tere. même bu ko même sharia à part sharia sax loolu day indi ay maladie yu bëri mhm. loolu ku koy def ku nekk booy booy booy génn àdduna di nga feebar feebar boo xamante ni da ngay mel ni squelette ñu koy def ñëpp boo seetloo ci borom ñaari tur yi tamit mhm. feebar boobu moo leen di dal mhm. parce que day am ndox bu muy bàyyi ca colonne vertébrale bi def ko sax bu ko defee yow dootoo mën a nekk ci nit ba ilaa yow mi diin da ngay jeex rek ku yabu di ko éviter donc les rapports sexuels li ci ëpp importance euh, bi. Mhm. voilà kon li wax kon kon kon kon médecin parce que suñu borom te gis nañ mbiru lu rek science bu da koy recherche lu normal la kon médecin. scientifique mhm. le Coran boo scientifique mhm. que c'est de la science. Mm-hmm. yàlla moo njëkk a nekk scientifique moom mi def suuf fexe ba ciy saxal mm-hmm. li nga xam ni moom la ñu war a lekk moom la ñu war a fajoo tamit mm-hmm. feebaree moom xamoon na ni nit ak ay pexeem dina fexe ba indi ay maladie am na ay feebar yoo xam ne comme ay Ebola ay sida yooyu c'est yoo xam ni dañ koo fabriqué yooyu dañ ko fabriqué donc yàlla préparé na terrain bi Mm-hmm. yow kay yaa war a dem sàkku ji xam-xam ba xam li mu préparé mm-hmm. tey boo rombee tey day taw nga gis ñax yi sax dañuy gis rek ku romb dem mm-hmm. damay yor sama téléphone damay photo ñax yi ñax yu bëri jël envoyé les herboristes ñu wax lu bëri ñu wax la ci lu bëri comme euh, lu deme ni ci euh, kénkeliba bi

Euh, Soneva fi may ñëwaak ak yow ndaxte avenir santé day waxtaane sujet tabou du bàyyi dara parce que bu ñu nee wér yaram du am complexe léegi doon na loo xamante ne gis nañ ne tamit ba léegi euh, naan mandiw dañ ko commencé di gis ci àdduna bi parce que léegi gis nañ ne jigéen ñi dañuy commencé di naan mandiw seen borom kër yi wala seen far yi ñu nekkal ñuy nekk ak ñoom ba muy éjaculer seen mandiw ñu naan ko léegi yow naan mandiw boobu lan lay joué ci euh, sa wér yaramu jigéen bi waaw manniw moom du pour estomac. Mhm. manniw du pour estomac. est-ce que du liñ koy gis ci film tubaab yooyu moo tax ñu koy def parce que tubaab dañ koy def bay après ñu kii ko. yu mooy jigéen buy naan manniw bi. waaw mën na la indil ay problème ci ci mhm. waaw parce que estomac bi xamul xamul manniw. Mhm. vraiment xamu ko déjà ni ñu koy sonalee rek di ko jox yu bon yi. donc euh, vraiment war nañ ko mën a éviter. Mhm. man niw man niw moom loolu loolu moom waruñu si sax débattre parce que psychologiquement c'est pas normal mhm. waaw mhm. loolu moom maa maana day indi moom vraiment mën na la indil ay sëkkil yu bëri problème d'estomac parce que euh, foofu du yoonam daal du voie di mm-hmm. wax naan ndox du ndox du bàyyi yoonam donc mandiw bi fa mu war jaar nañ koy bàyyi mu mm-hmm. jaar fa waaw man daal sama xel mi sax mu ngi xaw a wëlbatiku mm-hmm. da ngay gis ñu koy def kon kon euh, beneen bi fi may ñëw ak yow soxna Eva ba léegi mooy lu jëm si mbirum euh, rapport sexuel bi ba léegi gis nañ ne tamit góor yi bu ñu nekkee ak seen soxna wala ñu nekk ak jigéen bu ñu tëddee rek bu ñu seen bopp éjaculé rek dañuy jóg gaaw daal di wëlbatiku tëdd ndax loolu jaadu na est-ce que du dañuy des. Mm, loolu moom manque d'affection la. Mm-hmm. góor bu lay def loolu rek xamal ni moom bugg la yow ko jigéen ki yaa war a génn daw bàyyi ko foofu. Hmm? yaa ngi yëngal sa de. <laughs> te en général en général jigéen jigéen ñu koy def ñoo fi dàkk jur doom de. gis nga euh, rapport mm-hmm. dafay dafay dafay nekkul tout temps lay neex am na yenn instant yoo xam ça fait mal. Mm-hmm. loolu xam nga duñ ñëw ba pare duñ la bëgg a déranger ni la affaire bi metti na mais metti na. Mm-hmm. rapport sexuel metti na. Mm-hmm. waaw mais métti bi day mélangé wu ak. Euh, ba plaisir bi waaw. Mm-hmm. waaw donc yow nit ki bu fekkente ni bëgg nga parce que dama yaakaar rapport sexuel boo koy def da koy def ki nga bëgg boo ko defee ba pare mën nga ko jël teg ko sa bu ngeen raxasoo ba pare nga jël ko teg ko sa dënn xam nga mu sëdd sa dënn nga caressé ko biisu ko. Mm-hmm. yooyu mooy montre ne. yow mm-hmm. tu l'aimes toujours. Mm-hmm. nga def rapport sexuel rek dem ça veut dire que yow loolu rek nga soxla ci moom. loo loolu dina wàññi. absolument day wàññi waaw day wàññi désir ku jigéen bi. dina wàññi affection am xam nga et puis xolam du neex sa dëgg jigéen. xolam di naqari bu bës set. loo loolu moom. Euh, wala wala wala wala sax doguma la boo éjaculé ba pare nga bañ a jóg noonu tëdd ci kawam benn cinq minutes. nga dogo job mu dem raxasu nga raxasu mu ñew tëddaat sa kaw waaw waaw waaw loolu moom c'était des des signes d'affection rek loolu ça veut dire que nga nekkal bëgg nga ko voilà nekkul c'est pas uniquement pour pour les kon kon Sénégal Sénégal est-ce que du léeg-léeg dañoo jàppee jigéen yi mbam ba nga xamant ma ngi jégalu ci cadeau gi sax ndaxte ñu ci bëri dañuy wax sa borom kër bu la soxlawé nga bañ ko rek lo jur du barkel te do am barké waaw yow sa borom kër bu la soxlaa nga bañ ko loolu moom c'est normal mais tamit. Mhm. ça réciproque. réciproque parce que nee nañ la respect réciproque. Mhm. waaw yenn saa yi soxla la yow tamit nga sacrifié wu. même mhm. bu sonnee nga def sacrifice. le respect plaisir. loolu tamit dina baax ci njurum doom yi. jigéen moom buy jur bu nekkee mu ngi jur xolam neex. tamit doom ya dina baax yow so do soxna bu fekkente ni sàkk nga ko mu bañ guddi googu fexeel fexeel fexe fexe fexe ba doom bi ci so bi ci soppi mhm. loolu moom loo ñàkk ñàkk xel war nga koo mën a xam mhm. waaw baax na fekkente ni euh, xamoo période am ndax nekk na période fécondité wala déet loolu en plus lu am solo la ci lu jigéen ñi war a xam waaw mais loolu loolu loolu tey nii est ce que du communication dafay manqué si couple boobu moo tax waaw parce que waaw. couple bu amul communication couple bu amul communication est-ce que di nga xam sa période soxna bu muy def fécondation ak tamit période bu muy nek di jël règle ak période bi nga xam ne deful fécondation sax euh jërul règle sax mais nekul nekul dal parce que jigen melna mën na bañ nek en fécondation mën na bañ nek di jël règle ba paré tamit du nek physiquement waaw du nekk physiquement mais boo nekkee sa soxna nag euh, nekkul physiquement am na nooy doxaleeg moom ba nga xam ni xam nga jigéen dafa yomb nax kon communication dafa baax ci couple bu ma bëggee dégg si nga waxee baax na am na ñoo xamante ni ñooy gérer seen règle jabar bu ñu gisee règle ñu ni waa date bii la mais mhm. temps de jour après elle sera seconde jour yi su fekkente ni bugguma ci am doom je vais faire attention bu mhm. ngeen a def ay système yu bëri yoo xamante ni fécondation du am après loolu si quelques jours rek nekk mm-hmm. si sept jours rek mm-hmm. bien mm-hmm. après boo paree tamit voilà tu es tu es libre de faire de faire ce que tu veux donc communication dafa baax ci foofu kon c'est bien communiquer yéen góor ñi day leen wàcce seen bopp di communiquer ak seen jabar yi waaw am na solo laaj seen seen état état de sexe comme ni may wax tout le temps day leen laaj seen jabar yi seen état de sexe c'est très important parce que sëy tamit loolu loolu daf cee bokk voilà donc war ngeen koo xamante bu baax te ngeen di respecté seen jabar yi yéen itam di sangu ba set raxas seeni awra yi ba ñu set. Mhm. jox ko sa bopp sa jabar ba warul am benn odeur. Mhm. war a sangu ba set. parce que nee nañ en général jigéen yenn feebar bu ko amee si sëyam rek jëkkëram moo ko wàll. mais loolu Mm-hmm. jëkkër bi xam ngay góor moom yàlla moo leen bindee noonu mënuñu toog mm-hmm. jigéen moom boo bëggee noppalu xamal ni góor gu ne ak lu mu responsable responsable lu mu doon doon kilifa mm-hmm. dina seeti ailleurs waaw dangay gis ko ay kilifa kilifa diine kilifa aada day soxla dem xooli ailleurs waaw am na ci ñoo xamante ne nag jigéen indi ko seen kër loolu ngeen koy sóoraale bu baax xam ne seen jëkkër yi moom mhm. jigéen góor yàlla moo ko bindeewul noonu bu ko bindee woon mu fidèle kon du ko autorisé ba ñeenti jabar waaw mhm, am na solo léegi soxna Eva fi may ñëw ak ba léegi si mbirum sexualité si biir sëy mooy ndax baax na góor di sex awra jigéen tamit ah waaw loolu de scientifique yi démontré nañ ko nee nañ euh, booy sex euh, awra jigéen mhm. euh, liquide boobu noonu di génn ci moom loolu baax na à la gorge mais tamit bu fekkente ni jigéen ba awra ba am maladie moom. <laughs> cancer cancer vaginal yi moom. Mm-hmm. ah. dafa commencé am cancer vaginal. am na benn fàtte naa turam benn célébrité boo xam ne looloo ko dal. Mm-hmm. noonu la faatoo ci ci tubaab yi. Mm-hmm. donc bu jigéen ba amee cancer vaginal boo ko sexee flore ba bu génnee sa gorge mooy am cancer.